ñu gis ne ñu gis ne euh, mbëri wala boog yenn ci ay promoteur ñoo ngi naan combat yi mën nañ ko def wuy kuloo ba ki nga xamante ni muy Sidi Diakhaté euh, moom sànni na ay kàddu nee na bu ñu daa ko wuy kuloo bi suba suba suba moom mën na tijji làmb ji doxal ko naka nga gisee làmb làmb est-ce que mën na def wuy xanaa loolu mooy làmb da jeex léegi bu ñu defee wuy moom mooy làmb jeex na mooy làmb moom boo bëggee dégg-dëgg mooy làmb moom dootul amati xanaa ndax wuy ban sens la boo defee wuy pour muy leer ñooy ñëw. tëggkat ñooy ñëw ak mbëri ñaari mbëri kese ñuy ñëw xool luñ bëree foofu ngay xamee mbëri tàppet yi nag huis clos daa am sens. non non huis clos foofu ngay xamee tàppet. billaahi wallaahi foofu ngay xamee mbëri gën a tàppet ci mbëri foofu ngay xamee ci huis clos huis clos amul sens. nañ bàyyi gars yi fi nii man la suñu xool ban effort lañ war a def pour gars yi war a mën a bëre. est-ce que dina neex sax ndax Mame ñu tëggal ko mu mu tuus daw yuuxu kenn tàccewu ko kenn yuuxu ko est-ce que dina am sens est-ce que di nga sawar sax. mbëri am bopp yi te am feem ci làmb loolu yëngalu leen bu ñu defee huis clos dañuy ñëw pour milliard dañuy ñëw pour ñëw pour bëre si pour daan waaye mbëri tàppet yi bu loolu amee fi mu toll nii ci ngay gis mbëri ci ngay xamee mbëri ay tàppet dëgg la. non kenn waxatul loolu huis amul sens tamit benn côté mbëri promoteur yi wax ni dañoo yàkkamti pour def ko rek buñ ko defoon léegi léegi nii affaire yooyu duñ ko defaat dañ koy def i fin boobu xamoo xaw bàyyi ma ndax boo bëggee dégg-dégg man samay xarit ñooy toog tey bu fekkee ne huit kilos lañ ko def affaire yooyu def ko TNT bu ñu jëndee bu mel benn carte bu mille cinq cent bu ñu toogee ñun presque vingt personnes mën ko toog seetaan ko arrangé wul tey bu fekkoon dañoo def def euh, defuñu ko huit kilos gars yi seetaan tamit bi gars yi lekk seen xaalis ci làmb ji voilà loolu mooy problème ñu mënul dem stade dañuy toog seetaan ko fii loolu mooy problème waaye bu ñu defee huis clos loolu doxul ci làmb day état làmb mais yow selon yow su ma doon laaj naka nga gisee moment bii nii ñu ñu ubbee ko làmb tëggee ko tëggee ko ci ak moment bi état bi ñu toll nii. non man moom personnel bëriwu ma ren. non pour ñi nga xamante ni euh, jot ñoo tëgg ay moment bii nii bu ñu doon tëgg. comme exemple bu bu stade bi doon jël 500 ñu def ko 250 wala 200 naka nga gisee loolu. waaw yenn maanaa yenn maanaam fu comme gars yi ni ñuy def nii formulaire 16 bu ci nekk ñu def ñu ak gars yi ñu def écart loolu yenn maanaam quoi. xoolal léegi nii kaar yi day fees dell boo xoolee kaar yi bu ñuy dem nii affaire day fees dell te kenn takk benn masque léegi lool moo gën a da loolu gën a nekk danger. loolu moo nekk gën a nekk danger stade bi nga xamante ne dañ koy tijji pour mu am ay sécurité gars yi ku ci nekk di xool noo duggee noo génnee loolu mooy problème bi. waaye l'essentiel daal nañ jàppale gars yi pour jéem a xool na la ñuy bëree huis clos nekkul làmb bu fekkee làmb rek la wax huis ko defee a tëgg bu ko tëggee du tëggaat voilà te jël avance promoteur leer benn problème la da ngay di xaaraat après beneen jafe-jafe ñëwaat sa kanam loolu day metti